حق البكاء على سادات أمواته تبكي الأراضي عليهم كالزماوات حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالزماوات أبكي عليهم وأرجو في البكاء غدا رضوان من في غابوا بالحلاوات يا لهف نفسي على فقد الأكابر من غابوا لرب دعاهم للعلوات تبكي الليالي عليهم والسهور معا مثل العزيب والجن والغدوات كانوا عبادا بطاعة لربهم وكان جل لهم ربا بمناته كانوا يعدون ترك الورد مع شبه من الحلال من أسباب المصيبات كانوا إذا الليل أرقى ستر ساح لكن خاموا ذراعا لإحياء الدجن بالمناجات تجفو المداجع في ليل جنوبهم ناسين سلمى وليلى بالبشارات فحيثما برست ليلى ببهجتها عنها تولوا إلى المولى بتاعات ينسون ليلى وسودا في غيامهم مستانسين بأذكار وآياته حديثهم ذكر مغن نافع سمد لا ذكر هن ولبنى في المقالات قوم بأسلحة أعداءهم قهروا حتى علوا بالمدايا والكرامات أركان بيت جميع القوم أربعة بها يؤزز بنيان الولايات صمت وجوع طويل بعده زهر وعزلة عن شيوفان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات جهاد نفس وشكر بالغباء رضاه ترك التفات إلى حال البريات طريقهم عشرة جاءت لواسمها لا بد منها لأرباب الإرادات فمقصد وهو ما يفدي إلى سفر منها ضليل كشيخ في فتوهات والزاد وهو التقى منها سلاحهم وهو الموضوع الذي ينفي النجازات والزاد وهو التقى منها سلاحهم وهو الوضوء الذي ينفي النجاسات منها السراج بذكر الله جل على منها المطايا بهمات عليات منها العكاس بعجس والعزام لدى أهل الطريقة حزم بالحقيقات ومن لوازمها منهاجها أبدا وهي شريعة في بدء وغاياته ورفقة وهو إخوان لهم همم مع الوفاء بصدق في الأقوات ورفقة وهي إخوان لهم همم مع الوفاء بصدق في الأقوات والكل من جملة السادات سورة بن يكفي المريد مريدا ذا غوايات كل من الخوم شيخ عالم ورع منهم مرب بأذكار وحالات منهم مرق بحال وادها أبدا منهم مرب مرق بالإشارات كل خبير بأدواء القلوب معا يكفي المريدين أنواع الشقاوات كل كريم تقي سوهدا وسقا يمضي النصيحة في كل البريات يمهو بتقوى حسوس النفس جملتها يهي علوما من المولى ثنيات يبدي طريقة أهل الله وادحة للمهتدين جميعا بالفيوضات كل له همة يرغى بها أبدا إلى عزيز معز بالفتوحات يرى القضايا بعين القلب ظاهرة كما يشاهد ما تحت الأكنات يهوي ضياء كالضوء الشمس حيث نحى يحظى بها كل شخص في استناراته يغيب عن كل كون للمكون ساه نور عظيم وسر من غيوباته يمهو عن الغلب رينا قد يدنسه مهوى المقسل عن زوب النجاسات أولئك الخوم لا يسقى جليسهم إذ يكسبون المريدين سعادات توبى لعبد مريد صادق لهم بخدمة أو بحب أو هديات نالوا بقف الرسول المصطفى رتبا صلى عليه الذي يعطي المذيات نالوا بقف الذي جاء الأمين به عليه من حثلات كل ذاعاته من المناخب ما لا يحتوي خلم ولا لزان بقط أو حكايات منها تبحر في علم الشريعة مع علم الحقيقة من قبل الرياضات إذ ارضياد مع الإرشاد قبلهما من جالبات غرور مع شقاوات منها توقف عن غول وعن حمل حتى يروه صحيحا بشهادات منها تلسم خوف الله مالكهم على البضايات معها للنهايات النهايات منها تلاسم خوف الله مالكهم حال البدايات مع النهايات إذ في البدايات خوف السنب يسجرهم وفي النهايات إجلال الجلالات منها تلاسم هدم النصدون sëñ moom sëñ Cheikh sax. waaw sëñ daal bu fi nekkee mel na ni sëñ bi nekk nekk na. waaw sëñ bi daal la waxoon moom. la mu waxoon maam di feddali ak taalibeem rek. ne lii daal yéen a jëm ci am mooy. ba sëñ bi jógee ci géej gi borom dafa dajale woon ay xéewal di ko bernde yëg-yëg boobu daal la am ba su màggal gi jotatee mu jël bernde yëpp lu fa jógee ci moom te Daaru lii nag Daaru Salaam la ko defal ak njabootu sëñ Ibrahima la ko defal mu ñaanal ko daal ak taalibeem gën a sax rek waaw ba lu mu rek waaw li ci des moom daanaka waaw jërëjëf mbooloo mi kon ñu yëkkati ay kaddu yoo xam ne ni rek kaddu yi sëriñ bi la sëriñ Modou Mamoun mooy xet bu Muntaxa mi Mbàkke moo ngi lay ñaanal nga yàgg fi lool tànd ko wér di wax ne lii da koy feeñal muy asaka yéenam si diggante bi nga xam ne nii maam Cheikh Anta moom la doon terale sëñ Tuubaa te sikkuwul ne sa toogaay bi moo toogaay sëñ Tuubaa rek te moom day xam na ne sooyul da doon rëbbuwaay sooyul ndax lépp lu nga xam ne ni moom la sàkk woon sa liggéey sëñ Tuubaa ba mu ko bëggee sa sa jii ji rek teg ko si xam na ne léppam nangu la. teelu si waaye kàddu yëpp moom la neen tam moo ngi sant sëriñ yeex mi bu baax ndax lépp lu nga xam ne moom la moom la yi indi si kër gi bu ko yëgee rek dina si def mat sëkk te it digganteem ak lépp matala na ko lépp lu nga xam ne bëgg si bëgg na ko si biir kër gi rek laata mu yëg si si jëmm ji bu yëg si si moom rek lépp lay mat nee na ñoo ngi ñaan nga yàgg fi lool te ànd ak wér mbàkke jërëjëf ba lay si waaw kon ma jox leen ah. sëñ bi rek ma delloo rek cant sëñ maam. waaw sëriñ bi nee na. moo ngi nuyu ñëpp. di delluwaat ak cant sëriñ maamoon. sëñ bi daa wax ne xam na dafa wax ne diggante ak sëriñ maamoon sëriñ xam na lépp. loolu lool. nee na cee sant lool. ndax wax naa ko keroog Kër Masaar ca baas ba. wax na ko keroog Kër Masaar sa baas ba. ba mu ñëwee sa màggal sëñ Tuubaa ga. ñoom ñaar dañ maa doyloo ci seen diggante. nee na ñoom ñaar dañ koo doyloo seen diggante. te mu xeebu ci lool. te mu xeebu ci lool. waaye xam gi ma xam pasteefu sëñ Maamun. waaye xam gu ma xam pasteefu sëñ Maamun. ak nu mu jàppee sëñ Muntaxaa. ak nu mu jàppee sëñ Muntaxaa. ak sëñ Muntaxaa ni mu ko ko nangulee ci xolam. ak sëñ Muntaxaa ni mu ko ko nangulee ci xolam. dama wóor ne. da ko wóor ne. lépp luñ fas ci diggante boobu. lépp luñ fas ci diggante boobu yi. sunu borom dana ko sottal. sunu borom dana ko sottal. ci barkeb Serigne Touba ci Touba. ndax Serigne Mamoun itam. tamit. yàgg na ma wax ay baat. yàgg na ko wax ay baat. waaye keroog. waaye keroog. Kër Massar. Kër Massar. sa tante ba sa tante ba. daa wax ne. da wax ne. dinaa seerewaat tey loo xam ne. tey loo xam ne nii. damaa bëgg ñëpp dégg bëgg ñëpp dégg ko nag. sëñ Muntaxa dama koo tànn seet ko. sëñ Muntaxa dama koo tànn seet ko. ba mu doy ma sama bopp. ba mu doy ma sama bopp. tey ak ëllëg. tey ak ëllëg. ma ma dénk ko sama taalibe. ma ma dénk ko sama taalibe. mu doy ma ci. mu doy ma si. ma sama digganteeg Serigne Touba. doy ma sama digganteeg Serigne Touba. ba ma seetee loolu nag. ba ma seetee loolu nag. laa ko jox sama bopp. laa ko jox sama bopp. jaayanteeg moom. jaayanteeg moom. fas yéene ànd ak moom liggéey. fas yéene ànd ak moom liggéey Serigne bi rek. te loolu rek ki sama yitte. mu dollu ci mu dellu ci ne. seetuma ay at. seetuma ay at. seetuma mag ci kër. seetuma mag ci kër. seetuma doxinu kër. seetuma kër it. sama sama sama taalibe laa. sama taalibe laa seet. ndax moo may jëriñ. ndax moo may Muntaxa ma ci te sëñ Muntaxa rek moo ma si doy. ma dénk ko ma dénk ko ko. loolu la wax sa baas ba keroog ne sama mbokk yëpp nañ ko dégg loolu laa leen di leeral. loolu ba mu ba mu ba mu ànd ak sëñ Muntaxa rek. te loolu ba mu ànd ak sëñ Muntaxa rek. la ko tàmbalee wax la ko tàmbalee wax. waaye di ko jëfe ba bisub tey ba bisub tey nag. la mu waxoon ne. la mu waxoon ne. teraanga ju maam Seex Anta doon teral Serigne Touba. teraanga ju maam Seex la fas yéene di ko feeñal diggante ak Serigne Touba. la fas yéene feeñal diggante ak mi. tam waxoon ne it. tam waxoon ne it. fu mu ci yem. fu mu ci yem. bu déwénee. bu déwénee. dana ko weesu. dina ko weesu. loolu nag ñoo ngi koy seere. loolu nag ñoo ngi koy seere baax. jëf ji weesu na jot jëf ji weesu na jot jaado. jot daaw ja jot daaw da. joj daaw ji weesu woon daaw jéeg. jo joj daaw ji weesu joj nam ko jaayante ma nga sa. te loon ko jaayante woon ma nga sa. kon yàlla na ko borom àggaleel yéenam. yàlla na ko sunu borom yeggaleel yéenam. bàyyi fi sëriñ bi bàyyi fi sëriñ bi. bàyyi ko fi moom itam. bàyyi ko fi moom itamit. ba la ci yéene ba la ci yéene it mu yeggale ko. sëriñ bi itam. sëriñ bi tamit. bi may woo nii. bu mu koy woo nii. dima ma won ne mbégteem ci jëf ji. di ko woon mbégteem si jëf ji. daf ma doon junj rek. daf ko doon junj rek. ne ma xam nga suñu diggante. waaye xam nga sum diggante. te seen diggante. te seen diggante. li ma ci seere mooy. li si seere rek mooy lu mu xam. ànd goo xam ne nag. ànd goo xam ne nag. sëriñ Tuubaa rek a tax. sëriñ Tuubaa tax. te moom miy seetu moom jëfi jëfi jëfi taalibe yi. te moom mii jëfi taalibe yi. te Sëriñ Tuubaa. tey Sëriñ Tuubaa. nekkal fi Serigne Touba. nekkal na jëfi Serigne na jëfi Serigne Mamoun. seere pasteefam. seere pasteefam. loolu rek la Serigne Mamoun bëggoon. loolu la taalibe bu bëgg tamit. moo tax Serigne Mamoun am na si tawfeex. yàlla na fi sunu sëriñ yàgg. yàlla na fi sunu sëriñ bi yàgg. ñu nit ñu yàgg fi lool. di ko liggéeyal di ko liggéeyal. ba koo liggéeyal sëriñ Tuubaa. loolu rek mooy kàddu yi. xanaa soxna yi ñu jot leen. xanaa soxna yi jot li leen sant gi rek. ak nuyoo bi. ñoo xam ne sëñ Muntaxa gis na leen. njaboot sëñ Mamoune gépp a ngi toog. muy soxna yi ak ñu ko dar yëpp ànd ak moom si liggéey bi. an mu ne ñooy nekk ñooy ànd. ànd liggéey bi ànd liggéey ñoo koy taxaw sa waañoo tamit. سين باسيو بوبي دونكو سيرال سيرن بي سيرن بي غيسال نالنكو نانغول نالنكو تيل نالنكو كين جيرغن جوف منها تلاسم صب للإله على جور العزات جميعا والمصيبات ومن سجاياهم خوف النفاق بدا خوف الفضوحات